asalaamaaleykum mbokki xibaaru tàkkusaan si li si nar a gën a fës bokk na ci li ci nar a gën a fës lu jëm ci wàllu guerre bi gis nañ ne nag loole day gantal ay nguur yu bëri ngir lu ñu mel itam doon na la nga xamante ne lépp lu jëm ci wàllu koom ak yét la ko nga xamante ne moo jëm ci wàllu cëslaayu institution yi loole da koy nagamal dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi. ci boobu jamono yi itam lu jëm ci wàllub doxalin wu sell ak wu jaar yoon ci wàllub napp gi la ñu daal di am ab benn plateforme bi nga xamante ne day boole ñëpp ñu yëngu ci fànn boobee te bokkuñ ci nguur daal di xool ananes la ñu def ba daal di amal li ni mel foofee ca Mbour dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi lii lee di CNTS nag moo ngi sàkku lii lee di nguurub Sénégal moo gën a taxaw lii la di këru liggéeykaay yi fexe itam sàmm liggéeykatu nit ñi ci jamonoy mbas mi la ndaxte gis na ne nag ni ki lañ ko gën a soxla donte ne sax gis nañ mbas mi réew faaw ñu daal di fexe nit ñi daal di wéy ci seen wàllub liggéey noonee lañ ko daal di xamle dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li ñu mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar mbas mi ak nu muy alawtikoo ci biir diiwaani gox yu fasantikooy loole dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ponk la ci wax sa xalaat tey kon leen ci ponk la ñuy sàkku rek mooy ne rafet ngeen bañ fi fay wala boog ngeen leble fi bor ba dara Socé moo feete ci xarale gi Birama Ndiaye. gaawu fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre ñaari junni ak ñaar fukk xibaar yu ñu doore ko ni ñu leen ko waxee ci boppal xibaar yi corruption du gert doon la nga xamante ne day indi gàllankoor bu rëy ci wàllu wàllub doxalinum nguur jëf joojee nag gis nañ ne bëri na yoon la nga xamante ne dañoo ngi ci wàllu wàllub koom da koy daal di salfaañe ak it lu jëm ci wàllu wàllub cëslaayu démocratie rawatina ci institution yi loolee nag dafa doon la nga xamante ne. da ci andi gàllankoor bu baax a baax kàddu yooyee ki ko xam ne di imam Mokhtar Ndiaye nekk imam grande mosquée bu Liberté 6 Nord ñu teewlu ko ci téléphone ajandey Mariam Ndiaye waaw lii di corruption nu koy wax wàllu nger dafa nekk benn pratique boo xam ne bu salte la bu malsaine la boo xam ne daana ko dafay ndërmeel euh, li nga xam ne mooy jikko doomu aadama day mabbu jikko nit dafa nekk pratique boo xam ne bu dangereuse la ndax conséquence yi mu mën a jur ci société moo doy waar tey nger googu dañuy gis ni tey dafa nekk pratique boo xam ne daana ko dafa xew ci jamono daana ko amul benn état boo xam ne tey corruption tey épargne na ko boo xoolee sur le plan économique ci wàllu koom nger daanaka dafay ndërmeel économie réew daf koy màbbal ba tax na bépp état boo xam ne nger moo fay nekk règle état boobu pour mu jëm ci kanam pour mu développer lu jafe lay doon ba tax na xeex corruption boo xoolee ba ci biir mooy base du développement ba tax na tey suñu réew yi bu nu bëggee tey prétendre à l'émergence économique bu nu bëggee jëmale suñu réew yi kanam tey il faut que tey nu xeex li nga xam ne mooy nger xeex ka nag ci fànn yëpp niveau yëpp waaye itam ci secteur yëpp boo xoolee même ci wàllu politique nger tam bokk na ci liy màbbal li xam ne mooy tey daana ko ba ci wàllu processus électoraux yi sax nger googu daf koy impacté bay pervertir suñu état de droit yóbbu na ci ay système gouvernance yoo xam ne inefficace du am doole ci wàllu sécurité tam dañuy gis nger ba tey tey day yombal li nga xam ne tey favoriser trafic gu drogue traficu ay doomu aadama ak yeneen forme de criminalité ay ñaawtif yu bëri tey boo xoolee la koy waral tey mooy nger gu tasaaroo ci àdduna ci wàllu santé tamit dañuy gis ni nger dafa nekk loo xam ne dafay eh, affecté santé doomu aadama bi ndax gis nga ci lislaam neen bépp nit boo xam ne la ngay dundee alal ju xaraam la alal alal joo xam ne ci nger la tukkee kooku pour nga nekk en bonne santé lu jafe lay doon moo tax gis nga ulama wu sharia yépp dañu daje nu ni bépp alal joo xam ne dafa jóge ci wàllu nger alal jooju alal ju xaraam la nit ki daf ko war moytu daf ko war moytu pour am wér-gu-yaram mais tamit pour bu ëllëgee yàlla musal ko ci safara ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne bépp jëmm joo xam ne la koy mooy alal ju xaraam alal jóge ci nger ci corruption jëmm jooju safara moo ci gën a yey kullu laxmin nabata min xaraam fa naaru awla bi te doon war xam ne alal bon alal ju salte alal ju tukkee ci corruption alal jooju moo yées sax posan tey dangay gis nit di am ay métit am ay douleur dem def analyse def lépp te du gis lenn te li koy waral mooy alalu nger ba tax na kon tey urgence la tey ci suñu état yi tey nu xeex wàllu corruption ci secteur yëpp waaye itam ci niveau yëpp tamit ndax dafa tasaaroo ci àdduna bi. loolee di kàddu imam Mouhamadou Mokhtar Ndiaye doo ko doon yëkk ci wàllub ger ñu àddu ci beneen mbir bokk na ci ca Tambacounda ñooy yëngu ci fànn boobu lay rawatina jigéen ñi nga xamante ne euh, ñooy yëngu ci wàllub projet boobee ñu duppee INEDI di inclusion numérique épargne digitale innovation ñoom itam ñoo ngi def seen kem kattan ngir rek daal di ko amal ci teewaayu ONG La Lumière collaboration maanaam lëkkaloo gi ñu dox seen diggante ak Oxfam ak itam daal di fexe lépp la fay ñu daal di ko jëriñoo ñu ñu teewlu kii di Sori Ibrahima Sori Diallo ci micro Boubacar Tamba. programme yi amoon jamono boobu yëpp programme demee na programme de lutte contre la pauvreté. mais ñu seetu ne jigéen yi mënuñ ci woon dugg et j'étais exclu pourquoi parce que amuñu kayitu juddu pourquoi parce que kenn boolu leen ci dara ñu ne nag ñii il faut ñu xool naka lañ di fexee ba ñoom ñu bokk ci ñi nga xam ne ñooy doxal koom-koom ñu xool ñoom lan la ñu xam ci mbirum koom-koom à part béy ak togg ak ñu demee noonu ñu xool ne jigéen yëpp kër ga dugg am na tontine ñu jaare foofu nag pour commencer di créer lu ñu naan ay groupe d'épargne de crédit EPC épargne pour le changement la bu ñu def doxalee loolu ba jigéen ñi daal di xam ne ñoom mun nañu demal seen bopp di commencer di joxe xaalis di jël di liggéey ñu xam ne ah macha allah am na déjà lu taxaw mais bu ñu saytoo lu ñuy liggéey ñu gis ne da ngay jël téeméer ci sa ci ci kees bi mais téeméer ak ñaar dërëm ngay am wala téeméer ak ak fukk ngay am wala léeg-léeg sax du day manqué ñu na xam-xam boo xam ne bi war na leen di dugal benn xam-xam boo xam ne mu naan business maanaam lépp lu muy defati rek mu xalaat lan la ci am loolu demee ba toog ñu gis ne jigéen ñi ñu ngi commencé am kaddu ci biir kër gi parce que ñu ngi commencé participer ci dépense bi ñu ne mais su fekkee ne ñu ngi participer ci kër gi ñu ngi participer dépense bi te amuñu kaddu ci gox bi donc tout le temps fu ñuy nasee ak fu ñuy noccee donc nekkuñu fa donc day am le mag ñu daal di dugal euh, euh, benn jàngale boo xam ne bu ñu naan la citoyenneté képp ku jigéen jóg na taxaw pour wutal boppam ay kayit kayitu juddu carte kayit carte d'identité sa doom su juddoo nga wutal ko kayitu juddu ñu daal di dem bindu ci parti politique yi ñu daal di xool su élection locale amee ñu dem waxtaan ak góor ñi ah nan kat fu mu ne nii soo leen bindee ñaari nit ñettal nit bi ñun lay doon yàlla dimbali ñu ba am ay jigéen ñu dem toog ci donc maanaam ci commune yi. boole ko nag comme ñoom dañoo commencé woon di yàgg di am 10 ans ñuy épargne crédit donc xaalis bu bëri ay 2 millions 3 millions sécuriser xaalis bi donc mun a toll ci àll bi foo mun mënte toll di jënd ko jaay ñu ne léegi il faut que ñu jàngal leen muy digitalisation. donc loolu mooy indi projet bi muy inédit mooy maanaam koo xam ne ki jàngul mosul dem école ñu jàngal la fu naka fu nooy téye téléphone noo koy chargé euh, naka nga koy manipuler. nooy wootee nooy yónnee message nooy defee whatsapp mais surtout foo naka ngay tege sa xaalis ci nat naka ngay fexe ba jënd ci sa téléphone naka ngay fexe ba jaay sa téléphone naka ngay fexe nga toog bagadaaj bi sore nga jëflante jigéen bi nekk Saint-Louis te fekk ne kenn bougéwul fu nga nekk doxalin wu sell bu jaar yoon ci wàllub liggéeyu napp gi lax na rek plateforme ba nga xamante ne dafa boole mbooleem ña yëngu ci fànn boobule ca farewun ci nguur daal di ko amal xool ananes la ñu def ba daal di fexe jëmal li ni mel loolee nag moo ngi boole ci lu tollu fukki organisation ak juróom-ñett ya nga xamante ne euh, seen mbëbët bokk na ci ñu daal di fexe amab waxtaan ba nga xamante ne buñ ko doxalee dina indi njureef lu am solo ci ñoom ñu teewlu Moustapha Sall. képp ku yëngu ci wàllum napp ak lu ko soxal ñoom daal ñoo bootu taxawal ab plateforme di kuréel gu nga xamante ni dañ cee mën a waxtaan di ca sottantey xalaat wax li ñu bëgg seen xemmamteef ak bépp taxawaay bu nga xamante ni war nañ koo mën a def ba suqali napp googilee plateforme bi nag taxawal nañ ko fii ci miim réew gaaw su géey moom moo ko jiite ci Afrique sowu jant. waaye tout simplement au profit la pêche artisanale sénégalaise et de l'aquaculture. dana amal euh, cosaan gi bu baax a baax ak li nga xamante ne moom mooy mbayum jën ndax kuréel yi ñu dajale. waaye ñëpp ñi nga xam ne ñoom la na gi soxal ONG yi société civile bi euh, dana tax sax ñi nga xam ne ñooy kilifa yi xam ñan la ñuy waxal may fàttali ne nag njiitu réew yi ñoom ñoo ko jëloon nay dogal ne danañ ko taxawal euh, kon seeni réew. pour qu'il y ait une plateforme des acteurs non étatiques au niveau continental régional et national et c'est ce qui se fait aujourd'hui. lu toll ci fukk ak juróom-ñetti organisation di kuréel dajaloo nañ fa ñëpp di yëngu ci wàllu napp gi Union européenne ñoom ñu ngi ciy dugal seen loxo. si Sidya Diouf coordonnateur euh, interne de la direction des pêches maritimes euh, en même temps chargé du suivi évaluation. Euh, di rafet rafetlu aussi teewaay bi mais di rafetlu aussi engagement bi acteurs yi am pour mettre en place plateforme passage waa CEDEAO Union européenne bi nga xam ne mu ngi seen ginnaaw mu ngi leen di jàppale pour la mise en place de cette plateforme ñu ngi ko rafetlu bu baax en tant que euh, ministère des pêches et de l'économie maritime. plateforme bu bees bii la ki nga xamante ni moom lañ bu njiit ci plateforme boobu mu jiite ko fii ci mim réew Samba Gueye lay wuyoo moom daal nee na faaw rek ñu daal di xool li nga xamante ni mooy waxu Sénégal yi ñu indi ci kaaraange gu wóor ba ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllu napp ñu mën a def seen liggéey na mu waree te duñ ci am benn jafe-jafe Moustapha Sall fii ci Mbour ngir Sud ma Moustapha Sall dem ca Tivaouane foofee ca Ngadiaga ci département ba gis nañ nag niki tey ci suba benn teenu gaz moom moo fa daal di lakk-lakk bi nag wéy na ba sànq ci ay ñeenti waxtu jotee loole nag tax na rek am na sax kenn ka nga xamante ne jot na ci am ay lakk-lakk yu metti ci yaramam di benn ingénieur ñu dem ba foofee fekk fa Babacar Sow. lakku gu métti moo am ci usine Fortesa bi nga xamee ni wàllum gaz la ñu fay liggéey ca Ngadiaga notu guy jama bu Tivaouane yàqu-yàqu ce lim juróomi machine ak benn grue boo xam ni dañoo tàkk ba jeex am na ab ingénieur boo xam ni itam lakk na lakk gu méttee yi ndaxte daf doon jéem a débrancher groupe électrogène bi ani lan moo waral lakk gu metti googee benn teenu gaz boo xam ni bokk na ci fukki ak benn yi nga xamee ni ñoo nekk ci usine bi moo daal di explosé andi tiit ak njàqare gu rëy ci gox bi sapeur pompier bu Tivaouane ak bu Thiès ñëw def seen kéemtalaay kàttan waaye day seen jumtuwaay matul ba tax sax lakk gi wàññeekuwul benn yoon ba daal di mujj law ci gox bi Magay Njaay jaraa fut noo taguy jama mer ba futt jëmale ko ci usine Gadiaga ni ñu ko taxawale ci noo taguy jama donc tey jii dañoo am vraiment aw naqar yàgg nañoo wax ni usine Gadiaga bi yi nga xam ni moom la war a jël pour jël gaz bi mettre le populations en sécurité defu ko jeunesse bi yàgg nañoo marche yàgg ñoo ñëw ci ñun ñuy wax ñun nag wax dong lañ mënoon tey jii nag l'histoire dox na raison parce que tey jii lu mat ñeenti waxtu euh, teen boo xam ne dañ ko doon testé tàkk na te tey jii ñoom ñi ngi ñëw sapeur pompier ñëw na xam nga ne gaz ndox du ko fay tey jii euh, commandant territorial muy le sous-préfet Ndiongo Ndong ñëw na la gendarmerie ñëw nañu sapeur pompier ñëw nañ mais mënuñu si dara tey jii donc le président Macky Sall ñu ngi koy ñaan dégager ay moyens mu ñëw ñu fay gaz bi te buñ paree bëgg nañ ndaje boo xam ne diggante Petrosen Forteza ak waa Ngadiaga ak Kër Mbir ñi nga xam ne ñoom ñëpp kéeréeg jëla për ñëpp nga xam ne gaz bi dafa laal seen i seen i suuf ñu toog ñu waxtaan ñu régler problème mu ba léegi ci ngoon booru ñeenti waxtu lakk gi fayeguñu ko woon di loo xam ne lii ba léegi am na lu ci jaaxal jaraafu dëkk bi ba tax sax moom moomee di yëkkati kàddu di ñaan nguurug Sénégal na def kémt ba ngalawaay yi toppatoo wàllum gaz wala pétrole fa def ay jumtuwaay jumtukaay yu mat balaa njombe di fa am Tivaouane Babacar Sodo ci jokk ak yéen fi ci nottu guy jama pour Sud FM ngeen fi way di fi taataan xibaar yi ginnaaw bu fukki simili ak ñeent tego ci juróomi waxtu. Sud ñu àddu ci beneen mbir bokk na ci loraange yi nga xamante ne mbas mi daal na ko teg këru liggéeykaay yi tax na ña nga xamante ne ñoo ca yëngu di sàkku ci njiitu réew mi mu daal di euh, fexe fonk lépp lu jëm ci wàllu pour l'accord yi ñu docoon def ak ñoom fexe itam andi ndimbal lu am solo ci wàllu këru liggéeykaay yooyu. ñu teewlu kenn fa ñoom di Moustapha Kane représentant patronal ni ko tey ji la ñu amoon ak ndaje nag ñoom ñuy yëngu ci wàllu secteur hôtelier ci micro Ismaïla Marcel Coly. tey jii euh, situation bi jàpp na nga am ko xam ne ëpp na ñetti am na euh, junni ak juróomi téeméer entreprise yoo xam ne touristique day liggéeyal plus de cent mille emplois si Sénégal. ñu ngi éparpillé si si Sénégal yëpp ñu bëri tëj nañu aussi ñu ngi waaj te tëj. tey jii mbas bi dafa gën a tar. te xamuñ kañ lay jeex loolu nag bu si état bi jógul ah malheureusement euh, lu ñu euh, ñaanul yàlla mooy euh, chômage wala licenciement dafay dafay am n'est-ce pas te bu yemoon foofu si ñu sant la mais mun na dem ba sax ba entreprise yu bëri tëj comme c'est le ay entreprise yu mag yoo xam ne yuy employé plus de 500 personnes tëj nañ n'est-ce pas donc waxtu yi neex na mais jëf ji moo war a gën a ñëw tey ji président de la recevoir nañu waxtaan ak ñoom diisoo nañu jox nañ ko mémorandum d' accord na si point yëpp wante si wàllu ministère yi aussi nañu am pas-pas comme nu ko président waxee aussi ñoom tamit ñu jël décision yi ñu appliqué ko pas di xaar ñetti weer wala juróomi weer parce que problème tey jii ak situation tey jii euh, xalaatu tey jii moo ko war a mettre en œuvre mais bu fekkee day xalaat dans six mois yooyu mais ñu doon euh, dee dee nañu bu yàgg n'est-ce pas donc loolu aussi loolu la président bi jël na ay décision si conseil présidentiel bii passé concernant exonération fiscale pour 2020 et 2021 mais n'empêche service des impôts ñu ngi continuer di ñu envoyé à ATD ak ay mise te njiitu réew mi moo jël dogal dogal mais kooku dañu ko war a euh, appliquer donc loolu aussi dañu xamul ban Sénégal la ñu nekk donc loolu aussi il faut également que nit yi bu fekkee bëgg nañ jàppale travailleurs yi bëgg nañ jàppale industrie touristique il aussi que ñu appliquer yenn directive yu président validé le plus ñu mën a Euh, may euh, euh, pour que ñu mun a jël ay motuwaay pour mën a développer tourisme bi Moustapha kan nag moo ngi doon addu niki tey jii ginnaaw bi nga xamante ne waa CNTS di euh, daal dina am ab bésub lëmb ngir rek daal di xool ananes la ñu def ba daal di fexe lépp lu jëm ci wàllu liggéey ak ni ñu daal di soqalewaat lépp lu jëm ci wàllu koom rawatina ci industrie touristique yi ñu daal di ko gën a jëmal kaw loolee nag daal na am euh, solo ci njeexital gi nga xamante ne daal nañ ko nemmeeku ci seen wàllub xëy yooyu rawatina ci wàllub mbas mi moo di Guiro secrétaire général bu CNTS jàpp naa ne nag nguurub Sénégal dafa war a gën a taxaw këru liggéeykaay yooyee Ismaïla Marcel Coly Koli Ismaïla Marcel Koli di dellusi ci bés bi nga xamante ne waa CNTS ñoo ko doon am di waxtaane la nga xamante ne moo jëm ci wàllu nees la ñuy def ba daal di suqaliwaat industrie touristique fexe itam ña fay liggéey ñu daal di sàmm seen xëy Ismaïla Marcel Koli. ngir gën a jàppale këru liggéeyukaay yi CNTS mi ngi sàkku ci nguuru Sénégal mu gën leen taxawu rax ci dolli mu gën a aar bërëbu liggéeyukaay yi. ki xam ne lu ñu mel mooy Mody Guiro di secrétaire général bu CNTS. gouvernement bi nag ñu ngi gërëm président de la république ndax ba mu amee te ñu njëkk a jot ñu mu njëkk gis ci lañu bokk ñu ne ko kat liggéey bi xëy bi war nañ ko sauvegarder mu jël ay matuwaay jël ordonnance ñu rafetlu ko ci ñetti weer. waaye bu ñetti weer yooyu passé ba tey jii dañuy gis mooy ñun dundatuñu ci biir liggéeyukaay ndax chômage technique bu tar la nit ñi du jànkonteer fayatuñu amatuñu salaire. ñii dañ leen bàyyi ñu toog seen kër ku doon am fukk. ñu jox la ñeent. kon loolu xam nga ni métti na ci jot ci situation bi ñu toll. kon li ñu wax mooy li gouvernement bi defoon xeebuñu ko mais dañu yaakaar tey président de la République ci boppam war naa gëstu xool la nga xam ne mooy situation bi liggéeykat yi di dund ci biir hôtel yi bala nga naam naam nag ne fa ndax ñun ay syndicaliste lañu liggéeykat yi ñoo ñu fal waaye balaa liggéeykat di am il faut këru liggéeykaay taxaw këru liggéeykaay di taxaw nag ne mënatuñu dem. war nañ seet nañu yilif nee leen que ah lii xew na nañ leen ko seet nañ koy seetee nag am nañ yaakaar ni solidarité bi ñu laaj war na gën a nekk solidarité boobu état bi war na jël yeneen jumtuwaay yeneen moyen supplémentaire jël ay facilitation def ko ci këru liggéeykaay yooyu pour ni leen kat bu leen dàq kenn parce que suñ ko deful ñoom aussi dañuy jëm comme prétexte mënuñu dem day dàq doomu aadama yi bu ñu génnee ci ndaje bi le nag dinañu nas ay pexe ak ay tëralin yoo xamante ne bu ñu ci jaaree dinañu mucc ci lorange mbas mi le yeneen réew yi di def war nañ ko mën def ñun suñu réew mooy jéego ñu gën a koo def jël ay moyens supplémentaires ay facilitation parce que mbas bi xamuñ kañ la fi jóge puisque xamuñ kañ la fi jóge war na jël des mesures transitoires réfléchir am ay stratégie yoo xam dana permettre ña nga xam ne ñoo ngaan këru liggéeykaay ak liggéeykat yi ci benn dialogue social inclusif boo xam ne xam nañu ko ñu mën a waxtaan waxtaane taataan xalaatu ñëpp tënk suñu xalaat génne ko ci benn déclaration boo xam dañ koy jëppal président la république moom nag mi yore réew mi dañ koy ñaaxaat nekk na gëstu liggéeykat yi ndax liggéey ci suñu dignité ci ne ndaje bi ne nag mi ngi amoon ci teewaayu représentant central syndical membre de la CCSS représentant organisation patronale yi CNP ak CNES ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi yëngu ci secteur tourisme bi ca booba jamono nag Ismaïla Marcel Coly ca njaareem foofee jafe nañ nit ñi daal di fonk la nga xamante ne moo jëm ci wàllub mesure barrière yi ñoo ngi fay amal ay opération ya nga xamante ne dañuy saytu ba xam ndax nit ñi ñoo ngi fonk loolee am déet ak nu mënti demee xew yaa ngi fay wéy di fa am wante nag yenn say police daal di leen tasaare Adama Ndiaye. diwaanu njaareem bokk na ci diwaan yi nga xamante mbas mi laal na ko bu baax a baax looloo waral nag autorité yi nga xamante ni ñoo ŋànk doxalinu dëkk bi ak ñi yore wàllu kaaraange gi ñoom ñu ngi def seen kemtulaay kàttan ngir ñu respecter li ni mel bu ko defee ñaareelu vague bi nga xamante ni ñu ngi koy wax ci wàllu mbas mi mën a dàkk ay opération sax jëm ci euh, jël ay nit ñu ñu nga xamante ne takkuñu ay masque yenn saay dinañ koy amal fii ci diwaan bi contrevenant yi nag ñoom dañuy fay ay amende yu nga xamante ne dañ koy verser ci trésor public ñenn way kaaraange yi sax yenn saay dañuy tas yenn cérémonie yi nga xamante ne dañ koo def teewul nag askan wi ñu ngi wéy di bañ a topp mesure barrière yi rawatina takk masque ñu fàttali rekk ne premier cas bu Covid 19 ñu ngi ko nemmeeku ci district bu Touba. Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Adama Ndiaye ginnaaw njaareem foofee ca Sigicoor kilifa diine yi ñoom nag ñoo dugal seen loxo ci xeex gu ñuy xeex mbas bi rawatina law gu muy law noonee itam imam bu grande mosquée bu Bukot daal na sàkku ci nguurub Sénégal mu gën a dugal ay moyens ci xeexu mbas mile ci doon itam daal dina sàkku. ñu daal di fexe teg daan ña nga xamante ne ñoo yóbbu gune yi ca biti réew Ignace Ndeye. deuxième vague wàllu coronavirus laalagul bu baax diwaanu Ziguinchor waaye nag ay kilifa diine yi imam ñu ngi tàmbali di mobiliser pour janoog phénomène bi ni mel bokk na ci imam grande mosquée bu Bukot fii ci diwaanu Ziguinchor Cheikh Alioune Sow moom yi nga xamante ni démb dafa mobiliser ay fidèles ca quartier Bukot pour tàmbale li mu duppee campagne de sensibilisation daal di yeete ci wàllu feebar bi di coronavirus Cheikh Alioune Sow Hadj Boubacar Sow man mii seen nawle ma taxaw wax leen ak ñi nekk ci église bi ak abbé ñoom ñëpp tout ñoom ñëpp ñi nga xamante ne ay nit ay nekk seen ginnaaw pour sensibiliser xamal leen nañ taxaw tem ñu defoon daaw nañu continuer def noonu jël ndox ak eau de javel teg ci buntu jumaa yi eh, sol ay masque eh, waxaat population yi état bi tam ñu ngi koy ñaan ñu ngi koy ñaan mu dimbale imaam yi leen diisoo ak ñoom jox leen ay jumtuwaay yoo xamante ne dañu mën a dimbale askan bi ci eau de javel leen ko pour boo ko sa santé te imaam ay eau de javel jox leen ay masque jox ñu mën ko distribuer ñu mën ñi nga xamante ne ñu ngi leen di fréquenté ah, mu doon waxtaane ci lépp ah, ñi nga xamante eh, ñoom la ñu war a sanctionné mu di convoyeurs yi xale yi def immigration clandestine di dugg ci géej gi di dem dañuy xaru mais ñooñu man xam yan laa balaame les acteurs ñi nga xamante ñooy organiser boobu affaire parce que ngir bu xaalis ñooñu ñu war a téye tëj leen sanctionné leen parce que ñoom ñooy encouragé boobu emploi yeneen emploi yi ñu ngi fii donc nañu gëm yàlla les acteurs ñi nga xamante ne ñoom ñooy organiser loolu pour di ci am xaalis di ci gagner ay millions nag état recherché ñooñu fu ñu ne ñu jàppale parce que ñooñu bu ñu amul jàppee rek loolu loolu amati ci wàllu sensibilisation ci xeex mbas bi ba ci immigration clandestine ki nga xamante ni moom mooy imam grande mosquée euh, jot na rotalay kàddu jëmale ko ci wàllu actualité politique ci loolu sax ndax imam war naa wone ay conviction politique clair politicien la parce que politique xaraamul <laughs> mais ça dépend ni nga koy def damay dox suma intérêt région ak suma intérêt réew moom laay dox man bon je suis du ma contre nguur dama du ma contre décret yàlla Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM Ignace Ndeye noonee la directeur de du SNEIPS moom rek am di xamle euh, bu fekkente ne nag askan wa daal nañu fonk mesure barrière yi nga xamante ne noonu lan lañ ko tëralee fexe itam képp ka nga xamante ne daal dina yëgut dara lu jëm ci sa wàllub wërgu-yaram nga teel a dem ci wàllub kër docteur dinañ fexe mooy tondiku baax a baax lii la di cas grave yi euh, daan itam li la di mbas mi docteur Ousmane Gueye ñu teewlu ko ci micro xab say limaan woon waaw jërëjëf li may wax rek ci tàmbali bi mooy wax ni sénégalais yi euh, tey jii ñi nga ak ay chiffres yoo xam ne wax dëgg yàlla ñëpp war nañoo taxaw amaat seetlu parce que chiffres yi gëj nañ koo am te kii bi euh, feebar bi tey jii chiffres yooyu amaat nañ ko ay sans jëm kaw donc ñëpp war a taxaw dekkalaat suñu toogaay pour xool nan la ñuy jàmmarloo ak feebar bi defe naa loolu lu am solo la te loolu sénégalais yëpp ko war a def mais ñaareel bi mooy mesures yi ñu jël ma dama naan du ay mesures yu bees mais ay mesures yoo xam ne ñu ngi fi woon mais dañuy naan léegi na ko nit ñi saxal ñu appliqué ko may lan rassemblement yi ñu bàyyi ko parce que rassemblement yu ci ëpp mooy indi wàllaata bi mais ñaare ah mooy ci transport dañu waxoon ni dañuy bàyyi nit ñi euh, ñu dugg ci oto yi maanaam oto buntu bu mën a tëju mais gis nañ jamono yi eh, surcharge yi am ci oto yi te nit ñi tàkkutuñu masque ci biir oto yi te loolu tam muy source boo xam ne mun na indi wàllaate ba léegi nguur gi ne bu kenn di yëkkati ci oto te tàkkoo masque defe naa loolu tam lu am solo la loolu bu ñu ko defee saxal ko boole ci ak eh, mesure eh, barrières yi autorité sanitaire yi wax defe naa loolu bu ñu ko defee wax dëgg yàlla mën nañoo wàññi carrément lii mu feebar fii li ma ci yokk mooy recours précoce mooy maanaam kuy yëg lu tuuti sa yaram wax dëgg yàlla nga mën a jokkoo ak bu bu mu jokkoo ministère de la santé yi wala nga dem ci structure yi mais boo fay dem tam nga protégé wu takk sa masque yooyu ñu mën laa seet lu gaaw ndax da nga am feebar bi wala amoo feebar dafa naa loolu lu am solo la loolu yëpp bu ñu ko boolee ni ñu farlu ci jàpp ci wax dëgg yàlla feebar bi dina dellu gannaaw tey jii muy Dakar muy Ziguinchor muy Kaolack fépp foo dem ci Sénégal ci capital régional yi yëpp CPE yëpp ubbi nañ leen renforcer dispositif bi te pour mu wax la encore ni tey ji dispositif bi am ci CTE yi amutoon bi ñuy commencé mois de mars avril tey jii la gën a yokku dispositif parce que dañu am acquisition de matériel dañ ko séddale ci région yi yëpp ñu dugal ko seen CTE yi donc fi mu nii wax dëgg yàlla CTE yi yëpp sont opérationnels bu ñu amatee malade mën nañ leen jël en charge correctement niki bésu tey ji ñeenti nit ñoo ñàkk seen bakkan ci mbas moomee téeméer ak fukk ak benn amee ko bees juróom benn fukki ak juróom ñett yi kenn ci ñoom xamul fan la ko jële ñaar fukk ak juróom nag fi mu ne nii seen wér-gu-yaram daal dina suutante ba jéggi dayo noonee lañ ko daal di xamle niki tey ji bu ñu teewloo kii la di docteur El Hadj Mamadou Ndiaye championnat dina dooraat maanaam bu Sénégal ci tàggat yaram dina dooraat niki ñaari fan ci weeru janvier gi la ñu dëgmal loolee nag gis nañ ne. Euh, gën gaa bari juróom-ñeent fukki nit la ñuy daal di autorisé ñu dugg ci stade yi ñu teewlu docteur Ababacar Sadekh Ngom ak El Hadj Malick Ndiaye ci wàllu. docteur Ababacar Sadekh Ngom ñu ngi lay nuyu. yow nag yaa jiite commission médicale bu fédération sénégalaise bu football. docteur gis nañu kat fi toll nii wàllu reprendre compétition yi ñu ngi koy waxtaanee ba sax am na am ndaje moo xam ne amoon na ndax fi mu toll nii. football bi noppi na ngir ñu jogante dooraat. Malick maa lay pour loolu mais xam nga comme dañu nekkoon ci réew mi aussi dafa am ay loi yu koy doxal dafa am ay euh, département aussi état bi yoo xam ne nii ñoom ñooy toppatoo mbiru kii bi euh, football bi depuis mois de juillet defar na benn protocole pour soumettre ko fédération sénégalaise de football mi nga xam ne début mois octobre validé na ko jël ko nag jëbbal ko tamit ministre de la santé par l'intermédiaire du ministre des sport ñu dugalal ci sport yëpp. parce que amoon nañu benn journée d'étude fële ci arène nationale boo xam ne ministre des sports moo ko toppatoo woon ñu jël kayit yooyu yëpp jébbal ko ministère ministre de la santé ministère de la santé ministère de la santé ba daal ñu ko delloo booru le juillet won nañu ne mu ba pendant le mois de juillet et le mois de novembre entraînement mën na nekk ba le 31 décembre ñu xool ñu évaluer ko xool ndax mën nañ continuer bi donc ci diggante bi sax boo seetloo am na ay match yu fi am ci diggante bi <clears throat> loolu daf ñu dafa tax fekk ñu ñu ñu def ko comme entraînement parce que Sénégal joué na fi ak contre Guinée-Bissau tournoi U20 U20 bi am na fi huit match la woon Jaraaf fubal na fii Teungueth joué na fii yooyu yëpp dafa taxoon ñu jël protocole bi boole ko bu kaaf pour xool effectivement ndax am na lu capacité sportive yi mun a gérer loolu. waaw bi ñu ko xaymaa def également def tournée ci yenn équipe yi xool ni ñuy entraîner et cetera et cetera on s'est rendu compte effectivement que sur le plan de l'évaluation euh, football bi war na mën a war na mën a reprendre donc effectivement euh, protocole bi donc un protocole dynamique ba fi ñu fi ñu nekk nii on est en fin euh, pratiquement fin décembre évaluation bi def nañ ko et xam nañ ne effectivement sport bi lépp li nga xam ne ministère de la santé bëgg na ko ci protocole bi sport bi mi ngi koy topp mooy benn benn boo ci tegee benn tegaat ci benn muy ñett yoon am nga téeméeri pour cent en tout cas pour centage pour que euh, mbas mi ban la dal mooy lan mooy raxas sa loxo tout le temps mooy euh, takk sa masque tout le temps mais également di dandante parce que boo seetloo ci texte fédération bi mu génn démb juróom-ñeenti fukki nit kese lañu mooy maximum bi war a mun a dugg ci stade parce que délégation bu nekk fanweeri nit lan la wax nga indi ko mooy juróom benn fukki nit buñ ci tegee fukki nit ak juróom yoo xam ne mooy nekk officiels yi ak fukki nit ak juróom yoo xam ne ay journalistes la mooy juróom-ñeenti fukki nit yoo xam ne ñoo war a dugg ci stade bi ñooñu ñëpp nag balaa ñuy dugg ci stade bi dañ leen di xool defal leen jël seen température xool leen ndax amuñu sooj ndax euh, également ndax amuñu température ku ci amul loolu ñu bàyyi la nga dugg ku ci am loolu nag dañ lay isolé woo poste de santé bi gën a jege ci stade bi mu ñëw jël la prélevé la ku ñu xool ndax amoo mbas mi wala def mais docteur gis nañ sax démb dañ taxawal benn kuréel boo l' mooy njëriñam waaw kuréel bi nga xam ne Euh, commission médicale bi defoon na ko depuis le mois de juillet. mooy effectivement xool ndax ci entraînement wu équipe yi ndax ci euh, euh, match yi si amoon ci diggante bi ndax nit ñi ñu ngi topp mesure yi gën parce que xam nga sportif aussi dafa dafa discipliné sportif bu heure bi day topp loi wu loi wu discipline am de sorte que ci ñi gën a discipliné ci monde bi lañu lañu bokk en matière suivi de règlement donc cellule boobu dañ ci toftal également bien sûr médecins yi ngi ci ak euh, tout ce qui est médical ci ci ci équipe yeeg fédération ak ligue mais aussi dañ ci toftal ñi nga xam ne ils sont dans l'organisation des matchs toftal ci également ñi nga xam ne dans ils sont dans les sécurités des matchs ah toftal ci également bépp bépp nit boo xam ne yaakaar nañ ne war nga mun a indi dara par rapport ak respect de ces mesures là comme la Croix-Rouge sénégalaise ça me donne sax l'occasion ma féliciter bu Thiès bi nga xam ne ñoo ñu accompagné depuis le début ci bépp manifestation bu am au niveau au niveau du du stade Lat Dior de Thiès donc xam nga Croix-Rouge am na ci dëkk yëpp Croix-Rouge également euh, am na ci donc gox yëpp ñooñu dañ leen di mettre à contribution mettre à contribution la commission médicale mettre à contribution tout ce qui est donc euh, sécurité euh, commission sécurité de de fédérale ligue ligue professionnelle et ligue amateur Euh, ak euh, tout ce qui est membre des des commissions d'organisation ñuy ñëpp dañuy léegi xool di càmbar di xool nit ñi ndax ñu ngi respecté mesures yi ndax ñu ngi respecté et cetera et cetera deux dafay ñu def évaluation pour rendre compte non seulement fédération sénégalaise de football mi ñu fi teg mais également ñoom après ministère des sports ak ministère de la santé pour wan leen ne effectivement lépp bépp mesure bi nga xam ne jëlal nañ ko pour xeex mbas mi cellule bi mi koy ñu ñi ñu ngi koy ñu ngi koy club yi ñu koy topp ligue ñu koy topp fédération également mi ko topp. waaw léegi condition de reprise yi lan la docteur. condition de reprise yi mooy ñi ñi élèves yi def rek ba ba reprendre ñi ñi li ma la wax sànq rek mooy topp li nga xam ne état bi ak par le ministère de la santé moom la ñaax nit ñi pour ñuy ñu def ko ce n'est pas compliqué mooy euh, comme ni ma la ko waxee sànq mooy raxasoo tout le temps distanciation sociale ak takki masque ak takki masque tout le temps loolu tant que ñu ngi koy def je pense que duñu duñu duñu duñu am problème ci ci ci donc euh, c'est-à-dire également euh, dina am ay dispositifs de lavage des mains les vestiaires également gi leen ko désinfecté avant. Euh, euh, euh, avant et après usage les bancs de touche également di leen ko désinfecté avant à la mi et à la fin donc yooyu yëpp bu ko bu ñu ko bu ñu ko jëlee kii ko gën je pense que effectivement gën mën a def un sport boo xam ne gën a set wicc boo xam ne nii. Ar Malick. mais yow tey sa 88 doxul de. Mbadou. waaw doxul de am 80. ah non non daa am lu ñu doon am lu ñu doon def ci suuf moo tax. ah doxul ma yaa ngi ma yaa ngi am jàmm bu baax. sant alhamdulilah yow nag. maa ngi sant yàlla baax maa ngi nuyu sa toog ma Birame Diop nekk fay sa États-Unis ayca waaw maa ngi ko nuyu mais Birama waaw saa ñu toll nii ne man jotuma ko daal contour laa jëlee contour contour waaw may a seen rek saa ñu toll nii wax dëgg ma ne tàkk na ma wax dëgg yàlla mu gaaw di ñaan gars ñëpp wax na amul foofu courant ku demul ku demul seen rek bu ñor bu raama def def sa demande. doo am hmm. doo am courant. ndax mairie mënta indil kenn courant bu raama njaay xam nga euh, nit ñi Sénégalais il faut ñu bàyyi di nax askan wi xam nga gouvernement. Hmm. bu defee sacrifice def ay milliards. fexe àll bi am courant mairie na bëgg si profit bëgg na askan wi bu raama loolu dafa ñaaw bu raama njaay. Hmm. courant seen rek mooy mën a joxe contour. waa mit na park yéen a ngi leen dégg waa ndaam yi képp koo xam ne bëgg nga courant nga da nga dem seen rek bu ñor sa demande. nga def sa demande ñu waas na la indi la contour facture yi ñëw nga xaalis fay mu dugg ci keesu état biraam du dëgg mhm. kon nag état bu fekk bu bu sacrifié indi ay milliards def ko ay milliards indi indi lamp yi mbedd a ngi may bu ñor ngeen def demande mhm. benn mo mhm. pour cent eh, ñu estalé nañ ni ñaa waa Sénégal daal nañ gaaw indi ñu courant bi benn mo mooy waxoon naa la ko fii keroog waa Sonacos teen bi gis trois cent cinquante di jaay sa gerte deux cent cinquante te te Thomas wax na ma keroog kilo gerte mën na jar ba cinq cent mais bu raa mm, xam nga ma mm-hmm. bu jaaxal. mais Njaay kanam jërëjëf. jërëjëf Malick Cissé ca Medina Park ngeen ñu daal di ko jaajëfal jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Birame na nga def. sant alhamdulilah. naka yi tey. kooku. damay def tudd. Mhm, di woote fan. Dakar waaw yaa ma jox. waaw acca waaw. Euh, ci gerte gi. waaw. Sonacos na def comme CSS. Mhm. na wut ay tool. di bayal boppam gerte. <laughs> kenn du gis. trois cent cinquante. Hmm. di jaay deux cent bu Sonacos bëgg gerte na dem uti ay tool def comme CSS ni muy def xëcc ndox di bay noor ak nawet. Hmm. loolu moo gën a gaaw. waaw wa chinois yi moom kenn du leen fi jëlee tey kenn du leen fi jëlee ëllëg. Sonacos mën naa def ni CSS uti ay tool jàpp surga uti ndox di bay gerte noor ak nawet salaax waxuma la nawet kese de biraama. Hmm. nay bay noor ak nawet. bu boobaa doon soxla gerte. àll baa ngi ne yàmbalañ mais bu noonu nekk gars yi nekk ci naaj wi yendu ci bay ba bugg a dee. Hmm. tawta ci àll ba bugg a dee gis juróom-ñaar fukk ak teew di di leble si juróom fukk loolu kenn def Maodo Diagne Fada moomu bu fekkoon ne baykat la du nangu loolu li mu imposé baykat du ko nangu su naa ko daal bu fekkee bëgg naa am gerte. Hmm. na dugg ci àll bi dem wuti ndox di bayal boppam. ngeen baal ñaan jërëjëf mbokk moom moomee woote ci Ndakaaru daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Mhm. waa Birama. waaw. waa Bawol Bawol la. Bawol Bawol waaw. ñu lay nuyu bu baax. ñoo ngi lay fay Bawol. waa Birama tey maa ngi njëkkee sama kàddu. Mhm. ñi ma bokkal wax sa xalaat. seen du ay citoyen vraiment di liggéey bu am solo. nga xamante ne jamono benn bu ci ne. Mm. li ñuy joxe seen xalaat kenn ku ci faral di dugg di nga xamante ne foroo ko lu am solo la ma di leen laabire di lebari seen bopp li nga xamante ne moom la ñuy kàllante ci seen biir amul njariñ Birama su ñëwee tem lay def mais dañoo amee habitude boo xam ne ku dugg ñaari yoon ci rajo bi ñetti yoon te nga bokkadul la muy def jiima lijjanti yow foo dëkk looy liggéey lan la sa kër demee soo duggee di di ko gaaral loolu amul njariñ parce que man bawal boobu li may liggéey amul askan bi njariñ li may dund amul askan bi njariñ fa ma nekk amul askan bi njariñ li ma amal askan bi njariñ mooy thème bi ñu wax mooy li ma ciy génnee nit mën na koo jariñoo wala nit mënu koo jariñoo loolu maa ngi koy laabi suñu bopp parce que nag itam wax dëgg yàlla li ñuy def dañ cee war a am jaajëf waaye waruñoo def ba nit ñi di leen ci jéppi te wax dëgg yàlla am na loo xamante ne ay góor su fekkee dañu bëgg a rajo bëgg a a mel ni robina mbedd suñu demee mën nañoo dem hmm. xamante ne fi may daanee la rek Euh, xaw ma gën gerte <laughs> xanaa waxuñu gerte ren. moom bu ren bi la kay. <laughs> ah bu ren de man Birama <laughs> ci sama gerte laa lay wooyee nii. Hmm. waaw kon yàpp naa ne yaakaar naa ñi nekk rajo yi ñooy toog di wax rek. waaye baykat bi bay gerteem ba téye ko def ko ci ay saakoom moom xam na ni muy def. classe bi nga xam ne yàlla dogal na béyu ñu yëttuñu nag ñoo nekk ci loolu rek di ñooy daanele ma mbas mi moom dégg naa daal ku wax ba daaneel ñu ne la feebaroo say mbokk feebaru ma jàpp nag feebar su ñëwee ci réew te lu bëgg ma téeméer di ci wax. ah faaw am ci ku feer wala mbokkam feebar. Hmm. waaleykum salaam wa rahmatullah. jërëjëf bawol bawol ñu daal di ko jaajëfal jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. asalaamaaleykum. allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ Birame. waaw. na alhamdulilah. yokkal kàddu gi fooy wootee noo tudd. Ah, waaw waaw. baax man yéen a ngi am jàmm. waaw ñoo ngi am jàmm de yow nag. alhamdulilah ñu ngi am jàmm baax. noo tudd. waaw waaw man man ni ko ni ko ñëpp waxee laa koy waxee rek. Hmm. ah jaafee de gerte gi. waaw. waaw li ñëpp ni kenn du gis eh, trois cent cent deux cent. Hmm. noonu laa koy waxee loolu moom dëgg la am. Hmm. kenn du baykat du nekk ji. su état so waaw dagg na dagg na mbokk moomee nee na ni ko ñëpp waxee la koy waxee ñu jël keneen biti réew 33 841 22 33 asalaamaaleykum. 841 22 33. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. El Hadj Birame Ndiaye. waaw El Hadj. El Hadj Saasi boobu de moo lay woo Saasi temb ci xombal gaar. ñoo ngi lay fay El Hadj Saasi. di la nuyu rek di nuyu sa technicien di sa soppeek am di jàmm yëpp. El Hadj Birame. waaw El Hadj. man daal fi ma njëkkee mooy. Mhm. dama bëgg wax nguur gi na taxaw. man nag béyuma gerte mais am naa njëg pour jënd gerte. Mhm. te gerte li mu ëmb dafa bari. gerte gi ni génne réew mi baaxul ci réew mi mën naa indi crise ci wàllu économie bi ndax gerte li mu ëmb dafa bari. dana maafe man di nga maa daxin dana mën a cere li mu man dafa bari bari na li mu man te dafa baax ci njaboot bi kon bu ñu xoolee téeméer ba génne ko réew mi baaxul ci réew mi baaxul ci réew mi nañu xool li ñuy jëf bu ñu koy yokk sax ñu yokk ci réew mi ci réew mi li nga jaay bu ëllëgee di ko soxla li nga jaay bu ëllëgee moo lay jariñ gerte bari nañ njariñ ci dund askan wi may naan état gerte gi na ci taxaw bu mu génn réew mi ñu sant Mbaye Samb dañu koo soxla. Mhm. ba ngay daal nag mooy ci wàllu mbas mi rek di wax ministre intérieur na jëli matuwaayam Aly Ngouille Ndiaye day bi fi nekke jëw na matuwaayam bu mu ragal dara. bu mu moytu dara moom mooy yor aaraag kaaraange askan bi moo ko yor. Mm-hmm. ministre intérieur moo yor ak kaaraange askan bi li mu yor ñu dénk ko ne ko génn ci mbedd mi ñëpp takk ay masque respecté mesures barrières yi wasalaam. jërëjëf alaaji saa si mbopp gerte dina noflaay boobe bokkul ñaar ci itam ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. asalaamaaleykum allo. salaamaaleykum soo se kooku yegg siwul ñu jël keneen ci 88 lay doon salaamaaleykum 88 628 98 98 biti réew 33 841 22 33. ki la jox nga lekk bëggul nga dee. salaamaaleykum. Alaaji waaw sëñ bi. mu lay siyaar la mu def 19 mars. waaw. Sarr. ñoo ngi lay sant. di siyaar ñëpp. naka yi. waaw sant rek mais soo euh, mais Ibrahima. waaw. gerte xam nga à part gerte gi rek. Sonacos buñ ko jëndee. Mhm. ba décortiquer ko xolli ko. waaw xolliti gerte bi rek tonne bi 9000 lañ koy jaay Sonacos. Mhm. xolliti gerte. ton bi 9 40 saak lay doon yu saaku ngooñ mhm. bokkut ak nag nga jënd ko. jaayaat gerte bi jaay kopp bi. Hmm. te Sonacos day day mbir moo xamante ni ku ñëw dangay ngay indaale say niti bopp tey Modou jaañ Fada bañ koy indee Sonacos waa Darou Mousty dong la indi Louga ña fa nekkoon ñu jël leen yóbbu gerte gi nan ko bàyyi ak baykat yi liñ leen doon jox bu doon ñoom la ñuy xaar ci baykat yi baykat yi duñu am lu ñu dundee te wax dëgg yàlla baykat machine sax mënu koo am. dangay hmm. bay di xaar sa moroom abal la machine. dangay xaar dangay bay si xaar sa morom abal la mbaam. Hmm. xëy na danoo demul si àll bi. vraiment je vous remercie quoi di hmm. remercier Sud jërëjëf Barka Diop Sarr ah jërëjëf Barka ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 bi ci réew 33 841 22 33. delloo ziar. di rafetlu émission bi ni muy doxee am na ci liggéey bi nii dafa am na solo bu baax a baax ma ñëw ci sama wax xalaat. ndax ci réew moom. Mhm. ni ko gisee rek mooy ci point yëpp daal. feebul lan gis bu baax a baax muy wér gu yaram gi muy transport bi yëpp. bu dee lépp nag mënu koo tënk ci ci ci benn bis rek dañuy jël benn point rek. su mhm. ñu mel ni ñun sun dëkk muy suñu village muy suñu laykan lan dëkk Kajoor. Mhm. commune Mbir Daxaar lan bokk suñu maire bi ay maire ñun. waaw muy def ab liggéey bu rafet nag di ko rafetlu muy courant bi muy tasaare ci dëkk àll yi am na solo baax mu ànd ceeg état bi. Mhm. waaye li ñu doon ñaanal rek te di ko ñaan état Macky Sall ñu gën koo bàyyi xel mooy télé bi jugee Babacar jëm kaay jàll ba Bambey. Mhm. ñu gën koo bàyyi xel te xam ni télé bu am solo la ci réew mi. Mhm. te jox ba gis maanaam bu mel noonu ci réew mi yaakaar naa jafe. te 2000 ba léegi ñu ngi ciy wax. waaw mën na 2000 sax ñu ñun ci liñ fàttaliku 2000 ba léegi. élection yi fi jaar yëpp kuy campagne boo fa jaaree di nga ne moo faloo dinaa ko defal boobu ba nag ñu toog di xaar ba ci dem nag gis nañ ci benn acte bu rafet ay maire ñu ngi muy maire bi nekk foofu mu ciy wax ni ministre bi nee na fii ay weer nañ ko commencé bu nu ci mënee dimbali rek taxawal na ci ndax lu am solo lay doon ndax loolu daa doon tali boo xamante ni si ñu koy soxla di jaar foofu day bari waaw mu nekk ci digg li commencé ngaay jëm mbaab gaas ba jàll Bambey mhm. beneen point mooy eh, eh, courant bi nga xam ne ñu ngi koy xëcc di ko yóbbu ci dëkk àll ñu gën cee bàyyi xel ni nga xamante ne sii noonu lañ ko bëggee ñëpp nag askan yëpp ñu dem def seen i demande teel koo def pour courant bi ñu man leen koo mën a teel a taala ñuy suñu beneen point mooy ci wàllum transport ci réew mi sëñ bi bu fekkee dina fi xaj. Mm-hmm. waaw mooy sëfool si fan yii yëpp ñu ngi leen dégg ñu ni dañuy geraf ndax li leen alkaati yi di laaj ci tali bi dafa bari. mu mel ni loolu tamit lu war a saafara lu war a jublu wax ci wax bu baax a baax baax baax ndax moom bu sooxee rek réew mi lay sooxe. Hmm. kon ñi ngi ñaan ñi nga xam ñoo ko seq ñu toog waxtaan ci ba lépp li nga xamante ni si mën na cee jub rek askan wi mën ciy gis seen bopp ndax bëgg a xëy liggéey gis yoon yoon bi leer dafa neex waaw nga am oto bu la mën a yóbbu mu ñu taxawee nag jàpp na eh, danoo bëgg a marché bi sàngam wala danoo bëgg a gerte bi sàngam ñu seq taas wala war nañ leen a ba bu ñu ci waaw beneen bi may waxaat mooy li ma waxan ci suba rek ci ci ci ci médicament yi nga xam ni dugg ci liy dugg ci réew mi te jaarul ci yoon. Hmm. fan yi gis nañ ci benn fowukaay xale yoo xam ne dafa ànd ak drogue la waaw lan koy wax. Hmm. ñu koy coow bu baax a baax nag ma jàpp ne man ci duxaan bi la soxee quoi fi muy jaar war nañ ko gën a bàyyi xel mu concentré wu ci baax a baax a baax. Hmm. ndax loolu dafa doy waat day sooxee réew day daaneel koom-koomu réew. lépp li nga xamante ni si dugg na ci dugg na ci réew war nañ koo saytu sellal ko bu baax waaw xam fi muy jugee xam fi muy dugg ndax commerçant bi bu fexee ba dugal ko ci réew mi fi muy dem moom doo ko xam ni ma ko waxee woon rek région bu ne day ñëw jënd yóbbu mën na ni jàpp na commerçant sàngam mais ñu jënd ñëpp mën na leen jàpp te day wër di tasaaroo nit ñi di xëy di ko di wër di wër ko utilisé woo. jërëjëf sëñ Abdou. te doo xam fu muy mujjee kon maa ngi jaajëfal ñëpp ñuy teewlu jaajëf. jërëjëf sëñ Abdou kon nag transport boobee transport camion yi la ñoom ñoo ne dinañ dem grève niki ñaar fukki fan ak juróom-benn la ñu xamle dina ci ñëwaat ci yeneen jotaayu xibaar salaamaaleykum kooku yegg siwul 88 628 98 98. biti réew 33 841 22 33 salaamaaleykum. dafa mel ni ñooñu yegg si wuñu ñu jël keneen benn wala ñaar laataa ñoo yëkkati jotaayu xibaar yi. salaamaaleykum. allo allo